buntum ñaareel bi mi ngi jëm ci xibaari faatu ak mbiri àllaaxira ak lu aju ci ñaar yi lay wax buntu bi loolu la ci wax sunu borom nee na moo bind faatu ak dund ngir duni nattu kan moo gën a rafet jëf borom xam-xam yi nee nañu dee nekkul ak jeex waaye mooy teqalikoog ruu gi ak yaram wi tuxoo ci kër dem ci geneen kër soppiku melo jëm ci weneen melo moom faatu moo gën a màgg ci musiba yi waaye li ko gën a rëy mooy mel ni ku ko fàtte lépp luy metti ci ak moo ko gën a metti lépp luy topp ci moom itam moo koy gën a metti nee nañu malaakam deemi hasrail alayhi bu njëkkoon bu daay ñëw ñëpp dañu koy gis ba sayduna muusa alayhi salaamu pes ko foq benn bëtam mu mujj di ñëw asuyuti wax na ci téeréem bi tudd busral kaib bi liqaail mawla alxabib ni bilalum nu said nee na sunu borom bind nit ñi ngir ñuy jeex da leen a bind ngir ñuy sax di way waaye dañuy toxoo ci kër gi dem ci geneen kër ibnul xayim nee na bakkan bu nekk am na ñeenti kër yoo xam ni bu ci nekk moo gën a rëy ga ko jiitu kër gu njëkk gi mooy biirum ndey mooy bërëbub xat ak lëndam këru ñaareel gi mooy àdduna ji ñu nekk miin ko di fi fàggoo lu baax ak ak leneen këru ñetteel gi mooy barsax moo gën a yaatu àdduna lool ni àdduna gën a yaatoo biirum ndey ni la barsax gën a yaatoo àdduna këru ñenteel gi mooy këru saxga àjjana ak sawara yàl nanu yàlla tàbbal àjjana te musal ñu ci sawara kër gu nekk am na ay mbir ak atte yu wuute borom bushral kaim neena ibnu abi dunya jele na ci amir mu ni misaalum ab jullit ci àdduna mi ngi mel ni misaalum doom ju nekk ci biirum ndayam buñ ko génnee mu jooy naka noonu ab jullit buy génn àdduna waaye bu àggee fa boroomam du bëgg a dellu si àdduna ni nga xamee ni doom du bëgg a dellu ci biirum ndayam ba tey nee na omar ubni diinaar nee na am na ko ma sa faatu yonente bi sallallahu taala wa sahbihi wa ni kii xëy na génn àdduna bu fekkee boroomam gërëm na ko du bëgg a dellu ci àdduna ni nga xamee ni kenn ci yéen du bëgg a dellu ci biirum ndeyam ba tey nee na atirmisi ci téeréem bi tudd nawaadirul usul ni anas nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa jullit buy génn àdduna mi ngi mel ni gone ku génn ci biirum ndeyam ak lëndëm ga ak xat ga dikk ci yaatuk àdduna nga ne li faatu doy na ci sëkk li yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallama nee na faatu mooy mayuk ab jullit wala xéewal wallahu aalam ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama nee na faatu mooy xet gu neex ci ab jullit wala noflaay wallahu aalam ba tey yonente bi sal allahu taala alayhi bi alihi wasabi wasalama nee na nee na faatu mooy màngum ab jullit màng mooy la ñuy jële ca xare kon xéewal la bëgg a wax rek moo tax mu ni faatu mooy màngum ab jullit ba tey yonente bi sal allahu taala alayhi bi alihi wasabi wasalama nee na doomu aadama day bañ faatu te moo gën ci moom ak dund ba tey yonente bi sal allahu taala alayhi bi alihi wasabi wasalama nee na àdduna mooy kasob ab jullit di aw yoonam bu génnee àdduna génn na ci ab kasoom misaalum jullit bu génn àdduna mi ngi mel ni ku nekkoon ci ab kaso ba génn amug yaatu lool di wëreelu fu ko neex ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa nee na faatu ak may la wala xéewal ci bépp jullit ba tey yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama nee faatu mooy fay bàkkaar ci bépp jullit ba tey yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama li ëpp lu ab jullit di xaar faatu moo ko gën ci moom lépp lu ab jullit di xaar faatu moo ko gën ci moom malik ibnu maqool nee na dégg naa ni mbég mi njëkk dugg ci ab jullit moo di faatu nga yàlla yamuy gis ndax tiraa nga yàlla yamuy gis ak tuyaabaam ibnu mas'ud radiallahu taala anhu nee na ab jullit amul noof laay li feek te ak boroomam abu darda i radiallahu taala anhu nee jullit bu nekk faatu moo ci moom yéefar bu nekk faatu moo gën ci moom ku ma dëggalul ci loolu xoolal waxe sunu borom ji wa ma inda allahi xayrun lil abraar wala yaxsibanna allasiina kafaroo annama numli lahum ba ba jeex xayrun ibnu mas'ud radiyallahu anhu nee na képp ku baax wala muy ku bon dee moo gën ci moom dund ndax bu dee ku baax sunu borom nee na wa ma inda allahi xayrun lil abraar sunu borom nee wala yasibana allasina kafaru annama numli lahum xayru ba ala ba jeex Ibn malik al ashhariyu radiyallahu taala anhu neena na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena yaw sunu borom Nanga soplo de kep ku gemni ni man sab yonente la te xam ko abu darda radiyallahu taala anhu neena men menn mbokk joxuma haddiye ju ma gën a sopp nuyu ma dégguma ci menn mbokk xibaar bu gëna yéeme ak faatoom xabbaadatum nu saamit radiallahu taala anhu nee na li may mébétal samab soppe mooy gaaw a faatu atamimi mas nañ koo wax loo bëggal sa bopp ak say ñoñ mu ni faatu xabdu rabbi mas naa wax makkool ni ko bëgg ngaa dem àjjana mu ni ko waaw mu ni ko dangay bëgg dee ndax doo gis àjjana te deewoo mu ni ko dangay bëgg dee ndax doo gis àjjana te deewoo yoonum nu aswad nee na dee ab jaaru la boo xam ni mooy àggale soppe bi ci ab xaritam ibnul mubaarak nee na abu atiya nee na yaram wi gën a xéewu moo yaram wu nekk ci biir bàmmeel te borom amu koolute ci mbugal abu dunya neena sofiyaanu sawri neena dee mooy noppalu jaamukat yi rabiatu bnu zohair neena am na ko masa wax sofiyaanu sawri lan moo tax ngay mébét faatu te yonente bi salallahu taala alayh bi alihi wasabi wasallama tere ko mu ni bu ma laajee ma ni ko saa boroom dama laa wóolu teragal nit ñi am na ko wax ni am na ñuy tàgg di gënal ak dund waaye faatu am na junni ngëneel yu ñu xamul bokk na ci ngëneel yi taseeg yàlla subhanahu wa taala ak xalikoog bépp àndandoo bu jubul ab dog ci mbiri àjjana dog bi ci mbiri àjjana lay wax nee nañu àjjana ji njëkk am ci wurus lu weex la ko sunu boroom binde moo tudd daru salaam jata tege ci wurus wu xongu moo tudd daarul jalaal ju ñetteel ba ci wurus wu ganku maam wu wert la muy xeetu mela la moo tudd jannatul mawa ju ñeenteel ja ci wurus wu mboq moo tudd jannatul xuldi ci juróomeel ja ci xaalis bu weex moo tudd jannatu naayim ju juróom benneel ja ci wurus wu xongu moo tudd jannatul firdaws ju juróom ñaareel ja ci wurus wu weex moo tudd jannatu adnin ju juróom ñetteel ja ci xaalis bu weex moo tudd daarul xaraar moom daa tiim àjjana yépp am na ñaari bunt wet gu nekk ca bunt ya gii wurus lay doon gee xaalis wet gu nekk ak moroomam dana toll ni diggante asamaan ak suuf doj yañu ko tabaxe wenn doj wurus waneen doj xaalis suuf si lépp gëtt la gàncax ga safaraan yitnee wurus néegee wurus ak i buntam am na ay dex yoo xam ni dañuy daw ci mbooleem àjjana yi dexu kawsar foofa la nekk te mooy déegub yonente bi sallallahu taala alay bi ali wasabi wasalama ba tey am na fa dex gu tudd aynu tasniim ak aynu salsabil mbooleem ay garabam wurus lañu ba tey am na fa dex gu tudd nahru rahiqil maxtuum moom la sunu borom di wax xitaamuhoo misk wa fi saalika falyatanafasi almutanafisuun li mitli haasa falyamali alaamiluun am na fa yeneen dex yoo xam ni sunu borom rek moo xam seenub lim yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa guddi gi ma saa borom ma dem ci asamaan yi war nañu ma àjjani yépp ma gis ñeenti dex dexuk ndox dexuk soow mudul soppiku doxug sàngara ak dexug lem gu sell ma wax sayyidina jibril alayhi salaam ni ko dex yi fu ñuy jóge ak fu ñuy jëm mu ni ma ci déegub kawsar lañuy jëm waaye xamuma fan lañuy jóge dangay laaj saa boroom dana la xamal wan la ma ñaan ko ne suuti menn malaaka ñëw nuyu ma ni ma gëmmal ma gëmmu mu ni ma xippil ma xipp sama bopp ci wetu ak garab ma gis ab xubba boo xam ni ci wurusu weex lañu ko defare mu am ñaari buntu wurus wu xong ak xombul wurus wu xonq bu fekkoon mboolem li ci àdduna ci ay nit ak i jinne yéeg nañu ca kaw xubba boobee dañuy mel ni ñanaaw lu toog ci kawu doj ma gis ñeenti dex yi di daw ci ron xubba yi ma daa di bëgg a dellu malaaka moomee ni ma doo dugg ma ni ko daa am xomb nan laay dugge mu ni ma ubbi ko mani ko nan laa koy ubbee te yuruma ubbi kaam mu ni ma mi ngi ci say loxo mani ko anamu mu ni ma mooy bismillahi rahmani rahim ma daa di jigéen ni bismillahi rahmani rahim mu ubbi ko ma daa di dugg malaaka moomee ni ma mohammed gis nga ma ni ko waaw mu ni ma jàllal ci sa kanam ma jàll gis ñu bind ci ñeenti weti xubba bismillahi rahmani rahim ma gis dexug ndox di génne ci miimuk bismillahi rahmaani dexug soow walla meew di génne ci haag allah dexug sàngara di génne ci miimuk arrahman dexug lem di génn ci miimuk arrahim ma xam ni cosaanul dex yi mooy bismillahi rahmaani rahim saa boroom ni ma Mohamed képp ku ma tudd ci tur wii ci saw xeet danaa ko màndal ci dex yi ñu indi ab dog ci garabi aljana garabi aljana dog bi ci lay wax kahbul radiyallahu ta'ala anhu neena masnama laaj yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama garabi aljana munima duñu waw seenu xob duñu rot seeni meññe du jeex garab ga ci gëna reey moori garabu tuuba ab dàttam wurusu duru la ay caram sabara jadd ay xobam sundus bépp néeg wala xubba boo xam ni ma nga àjjana am na ci cari garab gii car bu koy keral mboolem lu nit di bëgg ci xeeti meññit ma nga ca ak lépp lu rafet ci bët misaalam ci àdduna mooy jant bi mi ngi asamaan ci waaye ak leeram mu ngi ci bërëb yépp ci suuf si sayyiduna ali karamallahu wajhahu nee na sax na ci xibaar yi ñu ni garabi ajjana ci xaalis la leen sunu borom binde seeni xob yenn yi xaalis yenn yi wurus garabi àdduna seeni daat ci suuf lay tege seeni car jëm kaw ndax kër guy jeex la garabi ajjana nag melul noonu seeni daat ca kaw lay jëm seeni car jëm suuf moo tax sunu boroom naan xutuufuhaa ya loolu mooy seeni meññit day suufe suuf sa lépp gëtu miski la ak anbar ak kaafoor ay dexam am na yu ndox ak yu soow wala meew ak yu lem ak yu sàngara saa su ngelaw uppee ba cari garab ya laalante kàddu yu neex ngay dégg yoo xam ni amul yu leen dàq sayyiduna ali karamallahu wacce woo nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa am na fa ajjana garab goo xam ni ker ga ci kaw lay jóge am ay fas yu amee laaf yu nekk ceroon nga ami teg aki yoo xam ni wurus lañuy doon duñu xayta duñu saw wali yu yàlla yi subhanahu ñoo cay war ñuy naaw ak ñoom ci biir ajjana ñi leen féete suuf ca ajjana di wax naan sunu boroom ñii ci lan lañu amee teraange ji sunu boroom ni leen dangeen daan nelaw ñoom ñuy julli ngeen daa lekk ñoom ñuy woor ñu daan joxe seeni alal yéen ngeen di nay abu hurayrata radiallahu taala anu nee na am na garab goo xam ni mënees naa wër di dox ca kergal lu mat téeméeri at te doo ko jeexal sunu boroom nee na ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na danaa leen wax waxtu wi gën a nuroog waxtu ajjana ci waxtu adduna te mooy ginnaaw jullik suba te jant bi feeñul fépp day am ker mu féex te barkeel lool ñu andi ab dog ci jigéeni àjjana yonente bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa kanami jigéeni àjjana ci ñeenti melo la leen sunu boroom bind wu weex wu mbokk wu wu gàkku wu xongu seeni yaram ci safaraan lañ ko bind ak miski ak anbar taafoor seeni kawar ci xaranful bu fekkoon kenn ci ñoom tifle na ci àdduna fépp day mel ni miski ba yowmal xiyaamati te géej yépp danañu mel ni lem ngir ak neex jigéen ju nekk dañoo bind turu boroom këram ci ab dënnam ak wenn turu yàlla subhanahu seen diggante ñaari wagg day sore ba toll ni farsax dañuy takk lu mat fukki lami wurus ci seeni loxo bu nekk ak fukki jaaro ci seeni baaraam ci seen loxo bu nekk ak fukki jaaro ci seen baaraam ak fukki teqal yu wurus ci seeni tànk ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na yonente bi salallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama ajjana am na jigéen ju tudd laibatu sunu boroom subhanahu wa ci ñeenti yëf la ko bind misk kaafoor ambar saxfaraan bannam yaramam xëy na wallahu aalam ci maul ayawan lañu ko moñe mbolem jigeni aljana dañu ko sop bu fekkon tiflina ci geej gi mu soppi ko ndox mu neex ngir ay loram dañoo bind ci ginnaawam képp ku bëgg ku mel ni man nay jaamu boromam subhanahu wa ta'ala loolu bind ci ginnaaw ibnu masud radiyallahu ta'ala anhu neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama nee na bi sunu borom bindee jannaatu adinin daa woo jibril alayhi salaam ni ko demal xol loolee ma bind ngir sama jaam yi nekk samay xarit mu daal di wër fépp am jigéen ju ko gis ca tabax yooyee muuñ ko àjjana jëpp leer ngir leeruk ay bañam sayduna jibril alayhi salaamu rot daal di sujjóot njort ni leeruk boromam la mu ni ko siggil jibril mu siggi xool ko ni tudd naa sellu kila bind mu ni ko yow kila woolu ndax xam nga kan moo tax yàlla subhanahu wa taala bind ma mu ni ko déedéet mu ni ko dama bind ngir koo xam ni ngërëmul yàlla subhanahu wa taala la gënal ci bànneexu boppam ak ci man ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa nee na bu fekkoon jigéen àjjana am na ci koo xam ni genn kawaram daa wadde ci suufu àdduna suuf sépp dana leer ko defee ñooñ àddana duñu nelaw ndax nelaw mooy mbokkum dee amul jant bu fa nekk amul guddi àjjana am na juróom-ñaari làkk yu ko wër benn ba xaalis la bu ñaareel ba wurus bu ñetteel ba wurus bu ñeenteel ba lu'lu bu juróomeel ba wurusu duru bu juróom benneel ba sabar jat bu juróom ñaareel ba leer guy lerleri diggante làkk bu nekk ak moroomam yaatoona doxub juróomi téeméeri at ñooñ àjjana seeni xar kanam day rafet duñu am benn xayib dañu leen di tusngal ci seeni bët te duñu tusngalu duñu am kawar lu dul kawar yi itiim seeni bët ak kawaru bopp abu hurayra radiallahu taala anhu nee maa ngi waat ci yàlla subhanahu wa mi wàcc alxuraan ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ñooñ àjjana bis bu set dañuy dolliku ak rafet akub taar ni waa adduna di wàññikoo yonente bi sallallahu taala bi sunu boroom bi mu bindee dee da ko làq mbindeef yi ci junni junni kiiraay te ak màggam moo gën a rëy asamaan yi ak suuf dañu ko takk ci juróom ñaar fukki junniy càlla la càlla gu nekk guddi na doxub junniy at malaaka yi alayhim duñ ko jege xamuñu fan la nekk waaye danañu dégg kàddoom bis bu set ak waxtu wu nekk bi sunu boroom bindee aadama alayhi salaam la malakul mawtu ci dee xëy na boole koog moom mu ni ko yow saa lan mooy dee sunu boroom subhanahu wa taala digal kiiraay yi ñu muriku ba malaaka yépp gis ko sunu boroom wax malaaka yi alayhim salaamu xool leen dee mii ñépp maase xool ko sunu boroom ni ko dee naawal ci ñoom tàllal say laaf te ubbi say bët mu naaw malaaka yépp xool ko gëlëm daanu mel ni ñu xam lu mat junniy at daanu mel ni ñu xam junniy at ba ñu xixee ni sunu boroom bindoo mbindéef mu gën a màgg mii mbindéef sunu boroom lii naa ni leen maa ko bind maa ko gën a màgg mbindéef yépp danañ ko mus xasra ilu téye ko yow laa ko booyal loolu la ko sunu boroom wax asraayil alayhi salaam ni ko saa ci gantan laa koy téye ndax moo ma gën a màgg sunu boroom jox ko kàttanu suuf yi ak asamaan yi mu door koo mën a téye mu ànd ak dal ci ab loxoom boobee la dee ni saa may ma ndigal ma woote benn yoon sunu boroom may ko ndigal mu daal woote ca kaw ni man maay dee mi nga xam ni maay teqale nit ki man maay dee mi nga xam ni maay teqale diggante boroom kër ak soxnaam maay dee mi nga xam ni maay teqale diggante ndey ak doom maay dee mi nga xam ni maay teqale diggante raay ak doom maay dee mi nga xam ni maay teqale diggante ab xarit ak ub xaritam maay dee mi nga xam ni maay teqale diggante mbokk mu góor ak mu jigéen maay dee mi nga xam ni maay noj képp ko am kàttan ci bannoo Israil maay dee mi nga xam ni maay dundal bàmmeel yi maay dee mi nga xam ni maay ràppal kër yi ak tabax yu mag yi maay dee mi nga xam ni danaa leen sàkku doonte da ngeen nekk ci biir biddiw yi ci kaw mel ni mbindeef mu nekk dana ma mus nee nañu dee bu dikkee ci faatu ba taxaw ci buntam da koy feeñu ci aw meloom bakkan boobee ni ko yaay kan ak loo bëgg mu ni ko man maay dee mi lay génne ci àdduna say doom duñu amati baay say soxna duñu amati boroom kër sa alal jëpp ñu donn ko séddale ko sa doom yi nga xam ni bëggoo woon ñu lay donn sa alal jëpp ñu donn ko séddale ko sa doom yi nga xam ni bëggoo woon ñu lay donn bu fekkoo defoon nga lu baax dana baax ci yow tey saa su bakkan boobee déggee wax ji day wëlbati kanamam xool bu xoolee gis dee taxaw ci kanamam ni ko xamooma man maay dee mi nga xam ni maa fi leen jële say doom ak sa way jur ngay gis bu ma génnee sagru kenn mënula jariñ ci say mbokk ak say doom man maay dee mi fi jële ñu njëkk ña ñépp te ñoo la ëpp alal aki doom ak kàttan su ko defee malaakam deemi ni ko noo gisee adduna mu ni ko day wore sunu borom wax adduna ni ko waxal ak moom adduna ni ko yow mooy kat bi boobee ngay mooy lu tax rusoo da nga ma daan sàkku te doo tekkale lu lew ak lu xaraam jàpp ni doo génn ci man mañ dañ naa ci yow ak ci say jëf mboolem li nga amoon léegi keneen yor ko mboolem li nga amoon léegi kaneen yor ko su ko defee alal ji wax ni yow mooykat bi danga ma faggu ci lu dul dëgg te daawoo sarafa xiir yi ak miskin yi ci man moo tax léegi maa ngi dem ci kaneen yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man atallaha bi xalbin salim mu naan saa boroom delloo ma ndax ma mën a def lu baax sunu boroom ni ko déedéet ku ab digam agsi du delsi ak ruuwam daa di génn bu fekkee ab jullit la ci ak texe lay nekk bu fekkee am naa feq ci ak texee di lay nekk sunu boroom nee na kalla inna kitaabal labraari la fi alliyin ba tey nee na kalla inna kitaabal lii lépp mi ngi ci shajaratul yaqiin bu al ashariyu radiallahu anhu ba tey wax ci téere boobu ci mbirum malakul mawti ak ni yi ni ñëw na ci loo xam ni ci muqaatilum nu sulayman radiallahu daa am lu mel ni ab lal ci asamaanu juróom am na ñu ni ci asamaanu ñeenteel lal boo xam ni leer la am lu mat juróom ñaar fukki junniy tànk ak ñeenti junniy laaf fees dell ki ay bët ak làmmiñ mbooleem doomu aadama yi ak mbindeef yépp ku ci nekk am na fa kanam akub bët akub loxo su ko defee day xool ci kanam yooyee di jàpp ca loxo yooyee loo ma waral muy mën a rocci ruu yu bari ci wenn waxtu loolee tax muy mën a rocci ruu yu bari ci wenn waxtu doomu aadama bu faatu ab bëtam day far foofa am nañu wax ni malaakam dee mi daa am ñeenti kanam benn ci boppam benn ci diggam benn ci kanamam benn ci ron ay tànkam su ko defee day jàpp yi yonente yi alayhi ak malaaka salaam ci kanam gi nekk ci boppam di jàpp ruu yi julli ñi ci kanamam di jàpp ruu yi yéefari ci ginnaawam di jàpp yi jinni ci ron ñaari tànkam benn tànkam ma nga ca kaw sawara beneen tànk ba ca kaw ajjana nee ñu malaaka moomu alayhi salaam rëy na rëy goo xam ni mbooleem géej gi ak dex yi bu ñu leen sotti woon ci kaw ab boppam genn toq du laq du laal suuf nee nañu àdduna sépp ci bëtu malakul mawt mi ngi mel ni aw fepp wu kenn ngëpp naka noonu mbindeef yépp ci biir loxoom nooñu lañuy mel da leen di wëlbati ni kenn di wëlbatee ay dërëm yu nekk ci biir loxoom nee nañu bu yàlla subhanahu wa taala jeexale def yépp mbooleem bët yi nekkoon ci yaramu malakul mawt dañuy far al asar yu nee na ñëw na ci tànqiixul mabaani ba tey atabaraaniyu andi na ci alkabir ak abu ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama mas naa gis benn bis malakul muy rocc ruuxu kenn ci ansaar yi radiyallahu taala ñooy saxaaba yi yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi fekkoon madina mooy lansaar yi mu ni ko def ko ndànk ab jullit la mu ni ko na sedd te sa xel dal ndax jullit yépp dama leen di def ndànk xanaa xamoo yow Muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa danaa rocci ruuxu doomu aadama bu kenn yuuxoo ci ay waa këram mu jug taxaw yore gi ni ko lan mooy yi yuuxu wallahi tooñu ko jiituwuma ab digam yàkkamtiwuma ab dogalam te defuma benn bàkkaar ci ngëb gii ma ngëp ak ruuxam bu ngeen gërëmee bi doon gërëmee lii yàlla subhana wa taala dogal da am tuyaaba bu ngeen ko gërëmul da am bàkkaar te dana nu delsiwaat delsiwaat na ngeen moytu ba tey al ashariyu radiallahu taala anhu ci shajaratul yaqin ni kaabul ahbaar radiallahu taala anhu nee sunu boroom daa bind ak garab gu nekk ca ay xobam toll ni ruuyi mbindeef yépp bépp jaam boo xam ni ab diggam ci àdduna des na lu man ñeen fukki fan aw xobam day wadd fa kanamu asrailu salaam mu wóor ko ni sunu boroom da ko digal mëpp ak ruuxam moo tax danañ ko tudde ko faatu lu man ñeent fukki fan ci kaw asamaan mu door a faatu ci àdduna